mbokki internet yi asalaamaaleykum fan yëpp nag ñu ngi waxtaanee mbiru Aziz Dabala ak Wally nga xamante ne nag ñoom seen biir appartement la leen fekk daal leen faat mbir mi nag chaque jour mi ngi woy di leer mi ngi woy di am ay suspense ndax nag ni ñu ko yaakaaree woon ak ni ñu ko foogee woon gën naa doy waare noonu ci ay nit yuñ jàpp xam naa ni daañ ñëwaat un ci faram fàcce wax leen itam ñenn ci ay nit yu nga xamante ni daal jamono bii ñu ngi ci ay loxo yoon ak ak ak itam ci ban anam lañ leen jàppee. waaye itam li ci gën moo di am na tur bu nga xamante ni fan yëpp ñu ngi koy dégg muy Nabou kooku nag euh, bokkoon na ci ñi nga xamante ni ñoo gënoon jege Aziz Dabala di xaritam benn bakkan kooku la moo tax ñu téye ko daañu ko waxtaanee waaye dañuy ñëwaat ca mbir yi na mu xewe ndax ku ne xam na ni mbir mi euh, le 18 août entre vingt deux heures ak quatre heures du matin la mbiri daal di am ku ne xam na ni nag mbir yi am ñu toogaat fan wala ñaari fan ñu soogat koo découvrir mais ku ne xam na ni nag mbir bu amee rek automatiquement tey jii même un inconnu bu dee woon fii maanaam bu génnoon àdduna fii ñu fekk ñu rey ko police ci xarañteem dina fexe daal ba creuser xool kooku kan la mujjee waxal ñu toppat piste yooyu noonu loolu mooy liggéey yoon mais ci avant màggal Touba lañu njëkk a jàpp première personne bu nga xamante ne daal moom dañ koo suspecté ci mbir mi waaw moom dañ koo daal di jàpp mais xam nga yenn saay enquête buy dox duñ ko bëgg siiwal waaye deux jours avant màggal daal jàpp nañ ci nit ku nga xamante ni moom mooy première personne bu ñu jàpp kooku nag biñ ko jàppee mënuñu ko woon a communiquer ndax sinon kon ñeneen ña nga xamante ni ñoom ñoo takkee ci mbir mi kon dañuy dem dañuy dem seen yoon te nag li des ci gang googu yëpp daanaka ñoom ñëpp ñu ngi woon màggal Touba te xam nga màggal Touba itam Euh, souvent dafay bëri ay convoi am na ci ñu nga xamante ni dañuy jóge ci sous région bi kon nag ña nga xamante ni dañoo dañoo bokk ci teen def ñaawteef boobu buñ yégee ni jàpp nañ seen naataango kon ñooñu facilement dañuy daal di ànd ak ña nga xamante ni dañuy génn pour ñibbi ànd ak ñoom dem loolu nag moo waraloon mbir mi siwul woon waaye taxul nag benn yoon enquêteurs yi képp koo xamante ni daal itam xam nañu ko tàkkee nga ci mbir mi nañu maanaam liggéey bu mucc ay ba bépp dispositif bu nga xamante ni jël nañ ko ba képp koo xamante ni daal dañ laa suspecté wala jàpp ni dañ cee bokk rek kooku ñu ngi la doon surveiller de près maanaam mënoo li woon rëcc ndax ndax ñu ngi la doon bàyyi xel ci gën a siiw nag moom moo di euh, Mamadou Lamine Diawo moom daanaka sax ñu bëree bëri jàpp na ni moom moo rey waaw dëgg la moom bokk na ci pré maanaam ci présumé yi coupable yi mais dinañ ñëwaat un peu ci biyaatal andil leen beneen tur bu nga xamante ni kooku daal lañ jàpp ni moom moo daal di faat waaye du Mamadou Lamine Diaw ndax Mamadou Lamine Diaw itam dinaa leen wax moom lan la ci mbir mi wax naa leen sànq turu Nabou Leye Nabou Leye moom xaritu Aziz la presque bokkoon na ci ñi nga xamante ni ñoo gën a jege Aziz moom dañ koo daal di téye effectivement mais lan moo tax ñu daal di koy téye moo di moom Nabou Leye bi mbir mi amee dañ koo laaj enquêteur dañ ko laaj ne ko maanaam yàgg Aziz fa ngeen mujjee gisante dafa njëkkoon wax ne que daf ko yóbboon hôpital ndax Aziz daf feebaroon après mu daal di koy déposé këram dem ñibbi loolu la version yi bëri daal di génnee waaye après nag itam moom dafa waxaat beneen wax moo di dafa àndoon ak Aziz ca cant bu nga xamante ni benn jigéen bu tudd Ndeye Ndiaye Tyson moo ko organisé woon waaye nag du du Ndeye du du Ndeye Ndiaye Tyson promotrice lamb waaye kii beneen Ndeye Ndiaye Tyson la kon nabu nabule daal ñu ne ko heure sàngam ba heure sàngam foo nekkoon mu ne da nelaw alors que moom ña nga xamante ni ñoom ñooy saytu enquête bi xamoon nañ ni que moom nabuley dafa doon wuyu téléphone ñu ne ko ko doon waxal itam mu ne xamu ko loolu lépp nag moom moo tax mbir mi daal xaw a xaw a ëlëb xelu enquêteurs yi moo tax ñu jàpp ko te itam tamit moom na bu moom biñ koy jàpp moom xamul woon ni ko itam am na ñun jàpp ba pare loolu lépp moom loolu maanaam leeral luñ ko ko woon waaye daal itam ca cant boobu nga xamante ni fa lañ nekkoon itam xibaar nañ ni ni que am na ay yu nga xamante ni fa lañ toppee assise fekk ko ci biir këram te sax ñooñu itam am na ku ñu jokkool pour am information ba xam ni ba xam Adris àgg na këram waa wala déet kon nag noonu la demee kon daal moom mi nga xamante ni moom mooy Nabou Leye itam daal li tax ñu gën koo téye moo di daal euh, le fait que waxu leen dëgg ndax dafa ne da doon nelaw alors que moom gis nañ ni kat dafa am ku nga xamante ni kookee la doon waxal téléphone ba bët set. léegi mu am itam yeneen tur am na ku ñuy wax ndës ñu gën koo xam ci turu Serigne am na turu usenu am na turu Assane ak yeneen tur yu nga xamante ni am na ci. pour ngeen xam li xewee daal daanaka euh, juróom benn nit lañu daal di téye du juróom ñaar mais juróom benn nit ñaari jigéen ñu ngi ci ndax kenn ku jigéen ku ci dolleeku dinaa leen wax lu tax ñu téye ko ndax moom mu jigéen mi li tax ñu téye ko moo di dafa am ko nga xamante ni dañ ko doon xaar. waaw dañ ko doon xaar ca boo maraîcher ca néeg ba nga xamante ni fa la amoon kooku dafa demoon màggali mais màggal googu muy ñibbisi la woo ku jigéen ki mais ku jigéen kooku nag deuxième femme bi kooku maanaam neen takkeewu ci dara dafa tax maanaam dafa jokkoo ak koo xamante ne dañoo jàpp ne ab ab moo tax ñu ñu daal di koy tënk ñu ñëw un itam ci ka xamante ni moom moo di Mamadou Lamine Diaw Mamadou Lamine Diaw moom nijaayam xam nga ñu ngi doon naan dafa am ku mu ñëw ne ko damaa rey kooku ne ko ñoo ànd dem effectivement nijaayam la waxoon ni ko dafa rey nit léegi nijaay bi moom dem na ba gis ni ko kat Mamadou Lamine Diaw am na lu mu commencé jël ba commencé tà tàkkal ko sagom te wóorul à tout moment mën na koo effacer moo tax moom nijaay ji daal dem daal di wax sapeur pompier ni kat xam naa ku rey Aziz ak Wali ñu ànd gendarmerie gendarmerie moo ñu jël si da nga xamante ni moom moo di Mamadou Lamine Diaw kon moom itam noonu lañ ko daal tegeel loxo. beneen point bi itam moom moo di euh, am na ku ñuy wax Assane kooku ñu ngi ñuy xamal ni que daal au lieu de Mamadou Lamine Diawo moom daal daanaka moom lañ gën a njortu ni que moom moo maanaam moom moo def kirim bi ndax moom lu tax ñu wax ko moo di da nga xamante ni moom moo di Mamadou Lamine Diawo bi mu waxee enquêteurs yi maanaam seen de kirim bi enquêteurs yi ñoom dañoo jàpp ni daal ka nga xamante ni moom moo di Mamadou Lamine Diawo maîtriser wul seen bi ni mu ko waxee daal ñoom loolu yenewul seen ma maanaam yenewul maanaam mais itam moom Mamadou Lamine Diaw dañoo jàpp ni am jeu bu nga xamante ni daf ko cee def muy wàllum téléphone yi ndax moom nee nañu maanaam euh, téléphone yi moo ko daal di seeyal ndax téléphone bi nee nañ moom mu ngi ko jaayee foofee ne ca marché Colobane nit ki ko jaay xam nañ ko kooku itam ñu ngi dox ay tànk pour xool kan la loolu yëpp am na ci waaye daal pour ngeen dégg ma dëgg moom euh, mbir mi mbiru gang la mbiru gang la moo tax daal ku ci nekk peut-être dafa am lu nga xamante ni loolu nga ci représenté woon en plus de cela itam téléphone Aziz dafa am benn transfert d'argent bu nga xamante ni dañ koo gis mu jóge ci téléphone am moom Aziz daal di dem ci beneen téléphone léegi nag loolu itam ñu ngi xool ba xam bi mu koy def maanaam bi transfert bi ñëwee ba xam boobu fekk na Aziz daal di faatu wala fekk na faataguñ ko loolu lépp itam daal il faut que ñu daal di xaar ba lépp daal di buur waaye nag quand même kenn retiré wu ci xaalis mais daal am na xaalis boo xamante ni transfert bu nga xamante ni jóge na ci compte Aziz jëm ci euh, beneen compte bu nga xamante ni itam loole peut-être dañ koy maanaam xaw a noppiwaale un waaye daal jàpp leen ni instant bii nii am na ci nit yu nga xamante ni daal jàpp ne ñooñee dañoo amoon jafe-jafe ak Aziz ndax ñu ngi ciy tudd ah, benn problème bu nga xamante ni dafa xaw a sensible moo tax loolu duñ ko ci préciser mais daal am na lu nga xamante ni daal commencé woon na ca cant ba ndax cant boobu nee nañ daal amoon na ay jàppante yu nga xamante ni am na foofu kon daal mën nañ jàpp ni peut-être mbir mi mën na nekk genre règlement de compte waaw mën na nekk genre règlement de compte waaye daal mbir mi lépp lu ngeen ci mën a xam daal ak itam lépp lu ngeen ci mën a jàpp daal moo di. Euh, Nabou Leye mi nga xamante ni moom moo di xaritu euh, Aziz li tax ñu jàpp ko daal moo di dafa joxe ay version yu nga xamante ni bokkul loolu nag moo waral ba tey jii nii ñu koy déglu waaye nag taxul nag ñu ne moom maanaam dafa cee taqi ou mais version yi nga xamante ni daal moom la joxe moom moo maanaam dalul xelu enquêteurs yi moo tax ñu koy toog di ko déglu xool à la lan moo waral loolu waaye daal itam daal au lieu de Mamadou Lamine Diaw am na keneen ku nga xamante ni daal ku ñu woowee Assane euh, kooku daal jàpp nañu que moom à soixante quinze pour cent daal moom moo gën a takkee ko rey bi kaka nga xamante ni moom moo di Mamadou Lamine Diaw kon nag mbokk yi lépp lu ci rusaate ñoo ànd ak yéen ngir leeral leen la nga xamante ni moom moo xew ñeel mbiru ki nga xamante ni moo di Abdou Aziz Dabala